projet yi nga xamante ni nii euh, xalif général bi am na ko teg ko ci loxo Thierno Nourou ne ko bu yeboo nga woo képp koo xam tàmbali ko ci sa ay rakk yi nekk ci kër gi yabal nañ la jox nañ la mandat nga dem ci sa ay mag ànd ak ñoom fas yéene jëmmal lii nga xamante ni nii moom mooy sa liggéeyu sa liggéeyu maam te ñu ngi jëm incha allahu rabbi ci la 6 mars ci ziyaara boobu nga xamante ni nii incha allahu rabbi buñ ci eggee ak jàmm Thierno Mouhamadul Bachir fas yéene na fa def déclaration bu mag jàkkaarlook Sénégal jàkkaarlook askan bi jàkkaarlook àddina wax leen li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggam moom mooy yéeneem moom mooy dayoom loolu yëpp nag li ko waral mooy bëgg méngoo méngale li nga xamante ni moom moo doon yéene maamam ak jamono ji nga xamante ni dañ koy dund ndax transition bi nga xamante ni nii ñoom suñu waajur yi yoroon liggéey bi ñu ngi koy def dañ koo méngaleek li nga xamante ni mooy fait de société ndax ndaw yi soxla nañ ku leen yee ndaw yi soxla leen ku leen taataan ndaw yi soxla nañ ku leen gindi ndax li ñuy am accès mooy maanaam internet liñ ciy wax ci diine yépp mën na bañ méngoo ak li nga xamante ni mooy diine bi nga xamante ni mooy suñu maam yu baax yi suñu kilifa diine yu mag yi moom lañ doon dund muy ku mel ni Cheikh maral al Fuuti muy lislaam suufi mu am ci taxawaay jëmmal ko dundal ko ba tey ñu mën a pratiquer suñu diine ci jàmm ak ak salaam